masin ba joona suubu leen dem gaar ba taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fàllilu Fadel Mbacké mi ngi gane àdduna ñaar fukki fanak ak juróom-ñaar ci weeru juin atum 1888 ca Daaru mooy ñaareel ci xalif général des Mourides Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waajuram bu jigéen di soxna aw Bousso mi ngi jànge alxuraan ci sëriñ Abdourahman Lo foofee la mokkale alxuraan mu yeggale xam-xamu fiq ci wetu nijaayam Mamor Jaara Mbàkke tëjee ko ci wetu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul waajuram bu tedd ba ak magam ja sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbàkke ca Mauritanie mu dem siyaare ji yonant bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa atum 1928 mu toog ci boppu xilaafa gi fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 1945 gannaaw ba magam ja làqu Mouhamadou Moustapha mu yeggalee liggéeyu jumaay Touba inauguré ko juróom-ñaari fan ci weeru juin atum 1963 ku jege woon ki fi doonoon njiitu réewum Sénégal la Léopold Sédar Senghor te mu doonoon chrétien. léeg leen ci bëgg a xamal. bëgg a xamal li li waral maanaam ma téye ma téye ko. mais loolu itam tax mu téye ko. ba mu jógee di wuti. ba mu jógee di wuti. li li mu am li mu amee léegi. li mu amee léegi. da da da da yónnee ndaw ñi ñu ngi wut si. mais dafa yónnee ay ndaw ne ko maa ngi ñëw damay wut si. moo ki moo ki moo ñeneen moo ñeneen ma ne leen kii wut mu ne leen nag koo kii nga mi ngi mi ku ci dikk ku ci ñëw wax dara sëñ Tuubaa mi wax dara kooki ba mu ko defee moom kooki ba mu dikkee ba mu dikkee dafa daal ne bu fekkee li ma bëgg ne daal di su fekkee li ma bëgg bu ma ko amee bu ma ko amee naa leen ko jàppale bu moom Mouhamadou Fadilou Mbacké moo woote màggal gi. moo sañoon ndax bu ma sañoon lu baax laay am. lu baax laay am. ma ñëpp te bokk ko ñëpp. te bokk ko ñëpp. moo tax bis bii nga xam ne. moo tax bis bii nga xam ne. sëñ bi da koo santaane. sëñ Tuubaa da koo santaane. muy sunu bis. muy sunu bis. dama bëgg ñëpp di ko fekk si. dama bëgg ñëpp di ko fekk si. ko defee. bu ko defee. lanu ci yaakaar ci moom lanu ci yaakaar ci moom te mu bëggal nu ko moom itam mu bëggal nu ko na mu ko bëggee ci noonu dinañu ko am ci ak fàttaliku nit ku selloon baaxoon lool laabiroon woyofoon moom Mouhamadou Fadilou Mbacké moo sanc Ndindi Madinatul Salaam Alieu Touba Bogo Mouhamadou Fadilou Mbacké wala boog Serigne Falilou Mbacké mi ngi wàcc liggéey atum 1968 ñuy ñaan yàlla suñu borom mu yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem amiin